sama gars yi nan ngeen gisee épisode bi nga xamante ne euh, moo jàll nii mun nañu nag euh, affaire yi jaxasoonu carrément ndax euh, Marlo mu ngi bëgg am problème à cause de Soxna Batoor te bis bu toppee xolam tamit comme nu ko paa bi waxee rek dina gën a dugal boppam pour l'instant nag Marlo war na def ndànk gën a faire attention ndax sinon. soxna Boto dina ko tëjlu te tamit euh, boobaa moom mooy am euh, problème moo taxit euh, kii di Marlo war na am tamit benn preuve bi nga xamante ne soxna Botor gàjj na ko te tamit loolu noonu rek mun na ko jàppale ba tax na nag mun nañ ni moom deful benn gaañ-gaañ si kii di soxna Botor moo taxit loolu rek dina ko jàppale ba nga xamante ne suñ demee tribunal dina ko dimbali. te suñ xoolee ba xool soxna Bator moo ko provoqué di ko xas wax ko yow doo góor te loolu ko kuñ ko wax moom métti ko moo taxit euh, Malo réagir euh, comme ça mais euh, am na sens ba dóoru ko te tamit kii di soxna Bator seytaane na ba lii di police te yaakaar naa ni du si dalee noonu ndax amul benn preuve bi nga xamante ne moom la ko kii di Marlo def te tamit amul leen lu mën lay foo noonu ba du génn kër gi moo taxit nañ leen patiente déglu épisode